internet Dakar Buzz di am mbégte ak cawarte rek saa su ne di janook ak yéen di leen jottalil actualité buzz de la semaine comme rek nuñ koy defee saa su samedi jotee tey nag maa nga koy dooree rek euh, ca CM unité 18 addu rek si lu doy waar lu fa am bés yi ñu génn di ñaari xale yu jigéen rek yuy def classe bu quatrième xeex fa xeex bu métti ba jota rek gaañante te dara waralu ko rek lu dul góor bu ñu sukkandikoo sax si témoins yi ñoom ñaar ñooñee ñu ngi yàgg enante depuis at bële ñu arrêté xeex xeex bu métti lool ñu yaakaar ne fa lay yem waaye dañuy jàng si wat rek di def kuuru mat kenn ki dafa ngàndaayoo ak ba paaka si noonu rek la ñu laalantuwaat ca biir classe ba ñuy amalee kuur ba keneen ka yorutoon paaka ba dal di xotti rek yaramu moromam boobee ak lamset laata mi langu nangu paaka boobee si moom daal di ko koy jàmm si noonu rek la fa police bu parcelle mujjee ñëw dal di leen jël rek yóbbu leen foofee noonu ca seen commissariat ba tee leen fa di xaarandi rek ba seen waa jur yi ñëw foofee rek ñu lijjanti bile problème. ay aywa ca Kaolack ndangaan laa jëm àddu rek ci accident bu fa am ci bés yi ñu génn nga xam ne rek daa jël bakkan kooku noonu nag tout tànk boobu ngeen di gis si photo bi rek moo si ñàkk bakkanam si boobu lee accident moom moomee nag mi ngi wuyoo si turu ba mbay sekk ay atam toll si euh, un an quatre mois moom moomee sax Mbaye Seck doomu caat euh, Seck la si noonu rek ñu ko koy jaal moom moomee caat Seck te di ñaanal kii ko di mbay sekk rek mu yeggalee ndawam ca aljana aywa ñu dem euh, Tali Diallo fare ca Caaroy addu rek si ñaari frère ya fa ñàkk seen bakkan kenn ki am benn at keneen ki juróomi at gannaaw euh, ba ñu lekkee supp ba noppi loolee nag jur euh, njàkkare bu rëy si seen i famille ak i seen i dëkkandoo bu ñu sax si waajuru bu góoru xale yooyee nee na rek kenn kee njëkk feebar ñu yóbbu ko hôpital laata keneen ki di jot ba ba ñu demee nag yàggul dara lañ leen wax ne ñaari xale yooyu ñàkk nañ seen bakkan ba ñu jëlee nag seen néew yooye ngir di denc leen ba ñu leen jullee ba noppi ba defar leen rek la police dal di ñëw jëlaat ñaari xale yooyu ne dañ leen yóbbu diwaanu l'hôpital encore ngir lu ñeel autopsie bi mu xamle ko moom waajuru xale bu xale yu góor yooyee waaye nag nee na nag ba ñu paree moom dafa yaakaaru ne dañ di koy laaj koppar si lu toll soixante-dix mille francs si suñuy koppar ngir yu góor yooyee gannaaw ba mu xam ne ni ñàkk na lu mu yoroon yëpp ñu ñëw fekk na récupéré na ay néewam ba noppi ñu daal di koy la di ko suy laaj soixante-dix mille ñoom ñu ko jël kay ñoo ko war a delloo si ba tax rek mu delluwaat ca procureur ngir joytu ko li ni mel. ba tey ci xibaar boobee laay desandi ak ñaari tout tànk yooyee ñàkk seen bakkan ca Tali Diallo fare sa diwaanu Caaroy gannaaw ba ñu lekkee supp boobee ba noppi ñu bari sax di doon naan la leen fàtt rek bokk na si suppu boobee ñu lekk ndax lu mu doyee war waaye nag waajuram bu góor nee na rek waajuru xale yu góor yooyee sax laay wax nee na rek jot na résultat autopsie waaye nag leneen la firndeel la mu firndeel nag moo di lu faat ñaari doomam yooyee di rek lu dul euh, seen asthme ya ñu yoroon bu ñu sukkandikoo ci autopsie bi nee nañu euh, poussière bu fi amoon rek moom moo yëngal seen asthme yi ñoom ñaar ñoo yee te asthme yooyee dañuy ko boobu boobule mbir rekk moo leen faat si noonu nag waajuru xale yu góor yooyee daal di yóbbu résultat autopsie yi foofee rek ca procureur ba ngir rek mun a jotat néew ba xaleem yooyee ba dal leen di denc. aywa maa du jëmale ci mbirum Seynabou njaay di ndaw soosu rek doon def ay produit wa ila saabu euh, si bëtu ba bel fiyam yooyu ba ñu si jëlee ay gumbo moom nag Seynabou Ndiaye euh, daal di nañuy teg si ndoddam ñaar fukki at ba kaso ngir coup et blessure volontaire bu jural sax gumbo ñaari tout tànk yooyu di Nogay Guèye ak Fatou Guèye lu nag borom kërub eh, borom kërub Seynabou Ndiaye euh, di wuyoo rek si turu Modou Guèye daal di nañuy teg moom it si ndoddam juróomi at ba kaso ngir non assistance à des personnes en danger si noonee nag ñaari coupable yi dina ñu verser rek lu tollook 150 millions si suñuy koppar euh, ñii nii rek di victime yooyu di Nogay Guèye ak faatu Guèye si fàttali moom moomee Seynabou Guèye da doon faral rek euh, di def ay saabu ila ay produits toxique ci ay bëtub ñaari xale yooyu naan rekk da leen doon yar ay dëkkandoo waaju ay dëkkandooru waajuru xale bu jigéen boobee sax nekkee ca Daaru Salaam bu yëmbal ñoom ñoo jël jóg rekk dal di porter plainte jëmali ko ci Seynabou Ndiaye gannaaw ba ñu nemmeekoo rek métital yu muy teg ñaari xale yu jigéen yooye ab accident bu métti te doy waar lool moo am alxames bi ñu génn si eh, diggante ñetti taxi ab auto particulier bu rouge ak tamit auto blindé gendarmerie bi boobule accident nag mi ngi amee si allée centenaire ba juste rek en face ambassade du Mauritanie eh, noonee si noonee nag juróomi doomu aadama ñoo si jëlee ay gaañu gaañu benn taxi ba nag daa yàqu yàqeet ba dañu ko mujje woon sax eh, beneen le de côté lu ñeel nag auto gendarmerie gendarmerie bi dara yàqu ci ndaxte blindé la te oto bu diis la donte sax euh, ñoom ñooñee def nañ fa rek euh, waxtu yu bëri ngir jubbanti boobu li oto nga xam ne euh, dafa diis loolu moom moomee nag oto gendarmerie bi mu nga jógee ko woon rek ca Grand Théâtre di doon ñibbi foofee ca diwaanu Wakaam leneen Ramata Seck femme de ménage soxna Masata Diak lay addu moom nag Khady Mbaye di doomu Djily Mbaye waaye tamit di soxna ba doomu Lamine Diak da ko mayoon rek ab terrain gannaaw ba mu ñàkkee doomam bu góor waaye nag lu si doy moo di borom kër Khady Mbaye di Amadou Kane dafa dal di rek falsifier document dal di jaay kër ga benn ancien gendarme buy wuyoo si turub Ibrahima si ba noppi rek jënd beneen kër laata muy. takk ñaareel si noonu nag Ramata Seck daal di koy porter plainte euh, di réclamer rek cinquante millions à titre de réparation si noonu rek le procureur daal di teg si ndoddam ñaari atu kaso dont un an braquage de l'année la yaa d'office yi ndakaaru lu tolloog nag ñetti mbindaan réussir nañu rek sàcc lu tolloog 120 millions ci suñuy koppar ak ay coffre yoo xam ne nii ay bijoux en or ak i jama ñoo sa nekkoon yoo xam ne nii rek seen employeurs yi ñoo ko moomoon yile mbir nag yu doy waar mi ngi xewee fii ci Dakar plus précisément ca cité Cyprès waa l'Observateur nag ñoo ko relaté ñetti mbindaan yooyu nag ñu ngi wuyoo rek ci turub Awa Jon Awa Jëy ak Astu Joom parc Hann la ñu jëm addu ci vidéo bi circulé ci réseaux sociaux yi eh, ñu ciy gis rek ab agent wu eaux et boo xam ne nii rek mi ngi nekk en service comme rek giddu visiteurs yi ak gaynde bu ko bëggoon a rek def musiba moom nag agent boobu noonu rek da doon jéem a intimider gaynde gi ba tax rek mu daal di koy tàllal loxoom si noonu rek la gaynde gi tëbbee ci kawam seex rek loxoom bi lu tollook fukki seconde laata rek muy rëcc loolee nag. doon faute bu rëy si agent bi nga xam ne ni daa daafa di woon rek ba muy def yile mbir te soo moytuwulee sax moom moomee dinañu ko ràjjee bu ñu sukkandikoo si ay sources yu bàyyeekoo ministère de l'environnement et du développement durable ba tey foofee ca parkaan lay desandi ak rek waajoo jéegaynde gi bëggoon def euh, musiba moom nag agent boobee rek mu ngi wuyoo si turu Abdoulaye Wade daal dinay xamle sax euh, ñenn si suñu naataango yi lu waral rek gaynde gi bëggoon koo def euh, musiba moom nag la mu xamle moo di rek da doon jéem a wut si karawu gaynde googe ngir jaay ko rek si marché bi ak ak ay koppar gu takku lool si noonu rek la ndolloo si boobule mbir tamit rek di déplorer conditions misérables eaux et ya nekkee foofee nga xam ne rek euh, soixante-dix mille francs la ñuy jot weer bu yàlla sàkk sans rek euh, couverture médicale ñu wax jëmale ci coronavirus bi xalifa général des mourides Serigne Mountakha Mbacké daal dina eh, xamal rek ay jege ñaalem ngir ñu jàllaleel ko message am bile eh, si lu ñeel apparition bile épidémie di coronavirus ak yeneen i jafe-jafe yi nga xam ne nii rek askan wi ñu ngi koy jànku wanteel si àdduna wërngël képp nga xam ne nag moom moom Serigne Mountakha Mbacké da si rek recommandé lecture collective Saint Coran bi mercredi ñeenti fan si weeru mars. atub 2020 bi ñu nekk ci bipp juma bu nekkee rek du na wér nga la këpp Ah, ci borom ñaari tur yi laay àddu ak yenn série yi nga xam ne ni rek dañ siy def seen biir comité de défense des valeurs morales ak ONG bi ñu dippee Jamra nag daal dinañuy jëbbal ab plainte série bi ñu néew dippee rek réewoo leen di ab série télévisée bu bees ba nga xam ne nii rek nee nañ ca chaîne biir Sen TV la ñu koy diffusé lu waral nag ñu porté plainte bi moo di rek si boobule série producteur bi day rendre rek public ay extrait comme idéologie LGBT ak promotion yeneen i contre valeur comme rek yu si mel ni désacralisation de l'autorité parentale si société bii di société bu Sénégal leneen depuis ba Cheikh Béthio Thioune nelawee ñu nemmeeku rek ñaari camp euh, si ñii di cantaakon yi ñenn ñi ànd ak soxna Aïda Diallo si waxtu wu ñeneen ñi ànd ak rek euh, kii di Serigne Saliou Thioune Gueule Tapée moom nag Serigne Saliou Thioune si ab vidéo rek la xamale ñetti dëggam ñi nga xam ne nii ànduñu ak moom moomee di Serigne Saliou Gueule Tapée laata rek muy xam le ni euh, bu kenn rek ndax boppam boobu boobulee vidéo sax mën ngeen ko suivre sur Dakar Buzz ngir gën see am rek ay firndeel Ah, ba tey ngeen di teewlu actualité buzz de la semaine ci Soxna Aïda Diallo sax laay desandi waaye bile yoon ak xalif général de Baye Fall bu koy rek tëkku moom nag Serigne Saliou Fall ci ab vidéo eh, bu mu fësal rek eh, fa bés yi ñu génn laa xamale rek moom it ay dëggam kii di Soxna Aïda jàlloo gannaaw ba mu waxee ni rek eh, mu dund dundam te bàyyi rek tout tranquillement kii di Cheikh Ibra Fall bu amee rek lu muy wax moom moomee Soxna Aïda Diallo ko jilee ji feneen lu ko may rek ñoom ñu ñee di Baye Fall yi pare nañu rek ngir jannoo ko moom mu xamle ko moom moomee Serigne Saliou Fall di porte parole xalifu njabootu ba Cheikh Ibra Fall ba ab vidéo ba tey ci soxna Aïda Diallo mi nga xam ne ni dañuy yëkkati ay menaces rek di ko jëmmali eh, si moom loolee nag doon na lu nakari loola ñenn rek si ay taalibeem ba tax ñoom it eh, ñu taxaw di yëkkati ay menaces ñoom ñoo ñee eh, soxna Aïda Diallo ya nekkee foofee ca Bordeaux si noonu rek ñuy interpeller rek état bu Sénégal ngir mu agir ba noppi rek di menacer ni dinañu répondre à autor rek si menaces yu ñuy teg si seen ndoddu sëriñ boobee di soxna Aïda jàlloo ñu dugg Géejawaay ak euh, seen maire ba di Aliou Sall moom nag Aliou day traîner rek Ahmed Aïdara ca tribunal gannaaw rek ba mu yónnewee présentateur Zik FM boobee ab citation directe ak rek président wu mouvement Géejawaay la bokk euh, procès bi nag ñu ngi ko war a amal rek ñaari fan si weeru avril euh, buy ñëw atuba 2020 bi ñu nekk. politique débat si nombre de mandat présidentiel bi lay addu gannaaw euh, jon kii di mbay Ndiaye nag daal dinay close boobu les débat si lu ñeel la troisième mandat bi gannaaw ba mu xamle ni par rapport ak nouvelle constitution bi njiitu réew mi Macky Sall mi ngi rek si mandat bu njëkk rétroactivité bi spécifié wuñu ko rek si loi bi te constitutionnellement euh, dara mënula tee rek ba njiitu réew mi Macky Sall amalaat beneen mandat mu xamle ko bés yi moom. Euh, Mbaye Ndiaye di ministre d'État et membre éminent du cabinet présidentiel loolee nag jurati beneen coow fii rek ci mu Sénégal leneen Marianne Siva Diop def na rek benn at si suuf ñaar fukki fan ak juróom-ñaar si ah, weeru février bi ñu génn moom nag nga xam ne taskatu xibaar la woon ah, ca télévision Futurs Médias doon def sax chronique ca plateau yeewu leen moom moomee nag daal dinay wéetal lool ah, ñii di ay collègue kii di Pape Cheikh Diallo sax daal dinay addu rek ba vingt 27 février boobee si micro Dakar Buzz di fàttaliku rek bés boobee nga xam ne rek doon na bés bu tar lool la eh, si ñoom ñoo ñee jege woon lool kii di Marianne Siva Diop si noonu nag muy dellu sax di defati ay témoignages eh, si moom tey fàttaliku sax bés ba ñuy mujjee déggante laata eh, mbir mi di xaw nee na rek ñoom ñaar ñoo waxtaan nañ rek si téléphone si lu ñeel ay wirdu ya ñu war a ba ay vingt et ñu xëy rek daal di ko koy tàgge mu doon lu diisoon lool si moom moomee di Pape Cheikh laata sax muy dellu di koy ñaanal yàlla rek. rek fa mu ne gënal ko fa mu jege jege tey naan rek bu doon sagoom kii di Marianne Siva Diop du mësa rek euh, dem. ba tey rek si Marianne Siva Diop mu am rek at 27 février bi ñu génn rek ak témoignage yi si ay jegeñaaleem indi kii di Adja di actrice moom it desu si gannaaw benn yoon daal dinay wax rek euh, digganteem ak Marianne Siva di koy fàttaliku moom nag neena na rek du doon dugg si lenn te kii nii rek di Maria Sivane Diop yóggu ko di wax rek ana nan la jege woon ak moom nee sax bés boobee rek mu ngi njëkk a gisee boobile. yooyu xibaar sur Facebook mu doon lu diis lool si moom gannaaw rek ba mu ko mënulee woon gëm naan rek am na lu xew su noonee rek la dal di utay ay renseignement ba xam ne rek kii di Mariane Siva Diop mu nelaw mu doon nag lu tiis si moom moomee Adja mi nga xam ne rek ba muy nettali rek je na mu relation ya mu amoon nag kii di Mariane dafa toog rek mujjee rek di jooy jooy bu métti def rek comme si que tey jii rek la génn àdduna moom moomee di Mariane Siva Diop grupo. Ah, ba tey ci Marianne Siva Diop lay desandi gannaaw Pape Cheikh Diallo ak kii di Adja eh, ya tamit eh, di mag bu jigéen si Marianne Siva moom it daal dinay rek eh, dikkaat si micro Dakar Buzz si bés boobee mbir mi di am moom nag nee na doon na lu bette lool gannaaw rek ba ñu toogee si guddi gi waxtaan ndoor defandoor lépp rek ñu xëy lu xew dal di xew si noonu moom it rek mu dellu di def ay seede yu rafet si rakkam joojee déddu adduna def na benn at 27 février bi ñu génn euh, tey naan rek ku nekk rek ñaan nga yàlla am euh, rakk bu mel ni euh, kii di Marianne Siva Diop tey dellu rek moom it di ko ñaanal yàlla vidéo boobee sax mun ngeen ko suivre tamit sur Dakar Buzz TV. Ah, ba tey rek ci moom moomee di Marianne Siva Diop nga xam ne manqué na lool ñii di ay collègue am rawatina ñamu doon partagé le plateau yeewu leen boobee ñu doon amal foofee ca télévision Futurs bi bisu tamit desu si gannaaw benn yoon ah, moom moomee nag daal dinay rek dellu moom it di def ay témoignage yu daw yaram lool si seen collègue boobu nga xam ne yàggul ak ñoom dal di rek déddu àdduna si noonu nag ba émotion dal koy jàpp rek moom boobee di bijou tamit di fa jooy jooy yu métti rek saba muy xamle eh, rek ni kii di Marianne Siva Diop wéetal na leen lool lool ñoom ñoo ñee mu doon partagel boobu les plateau di yeewu leen ba tey ngeen di teew lu buzz de la semaine ñu àddu rek jëmale ci ancienne présentatrice journal TFM bii nii di su Leya Soukeyna Ndiaye moom nag ay weer gannaaw divorce am bi moom moomee Leya dafa dellu rek foofee ca di fay amal vie bu paisible moom nag daal dinay am doom bés yi ñu génn gannaaw rek ba mu ko fësalee à travers ay photo yu mu yor bébé boobee daal di koy fësal rek moom moomee Leya Soukeyna Ndiaye ci réseau social bii nii di Instagram. si concert bu Assane Ndiaye doon amal ca Grand Théâtre lay addu si boobu les concert nag daal dinañ fay nemmeeku ab retrouvaille si diggante rek famille yu Assane Ndiaye ak tamit famille yu Thione Ballago Seck mu doon neexoon lool si seeni ba ak seen jegeñaale neex tamit si rek gis-gis gan ba ñu fa wone complice sax si seen biir ba jot fa sax def spectacle bu neex lool foofee ca Grand Théâtre ba tey ci boobule concert waaye bile yoon ak Mandiaye sekk ma ñu wax ne rek nuyuwul kii di Faramareen bi Wally Ballago sekk ba mu yéegee rek ca seen ba moom nag Mandiaye daal dinay def ab vidéo indi si ay leeral la mu xamle nag moo di rek moom ak Wally Ballago Seck ak Papa yëpp gisee nañu rek laata ñu ñuy yéeg ca seen ba nee na sax jot naa ka fekk kii di Wally Ballago Seck ñu nuyante loolu rek waral ba mu yéegee ca seen ba mu nuyoo Assane Ndiaye képp di borom bés ba Euh, si noonee nag lay waxee rek sénégalais yi ngir ñu arrêté ndax moom moom ma Ndiaye kenn xamu ko rek euh, si yile mbir. vidéo buy circulé bés yi ñu génn si diggante rek borom ñaari tur yi di Pape Mbaye ak Sanex jur na commentaire yu bari ci réseaux sociaux yi gannaaw ba ku nekk rek di ci yëyee di yàbbi ñu siy critiqué nag Sanex ak doole loole nag moo tax rek ba sànneex moom it daal di leen daal di si addu di tontu rek ñu ñee da koy di koy critiqué la mu xam ne nag moo di am na yàlla am na Serigne Babacar Sy laata muy naan rek les chiens aboient la caravane passe maanaam nañuy wëyadi rek di critiqué eh, si moom waa ilaa di wax si moom moom moomee muy avancé waa laata tamit muy xam la ni te moom moomee sax di Sanex amul rek jot di polémiquer. ba xam ndax Eva di actrice ci série Pod et Marichou dafa won loot boobule question doon na rek lu internautes yi di laajte rek à travers commentaire yu ñu def ci photo yamu mujjee fësal moom moom Eva nga xam ne rek dañoo gis biir bi réussi loolu ba tax ñuy laaj boobule question ci fàttali moom moom Eva def na ay weer rek yu bëri ba mu euh, marié rek kii di pii lu sabab nag yooyu lee xer ñaar ci ndax dafa won loot wala déet bokk na si rek photo yooyu ngeen ngeen di euh, si réseau si écran bi nga xam ne rek bokk na euh, si photo yamu fësal moom muumee Eva si réseaux sociaux yi ak euh, biir bi xaw see jóg comme nu ngeen koy gisee noonu. militante panafricaniste bi di Nogay Babel Sow di porte-parole internationalu ONG bi di urgence panafricaniste léegi yaay la gannaaw rek ba mu amee doom bu góor ba si ñu génn ajjuma bële sax yemook rek ñaar fukki fan ak juróom-ñett la ñu ko doon tudd fii nii si Ndakaaru si noonu rek ñuy ñaanal boobu boobule bébé mu dund rek te barkeel. aywa waxoon naa ko week-end ba lee génn di artiste comédien bii di Demba Ba nga xam ne rek feebar da ko tëral ëpp na at rek boobaak léegi ba tax rek mu def ab vidéo di si woote wëllu si noonu nag Kocc Barma daal dina koy rek dimbalee 200000 si suñuy euh, koppar la koy firndeel nag du lenn rek lu dul vidéo bu mu def moom mu métti Demba Ba euh, di si remercier kii di Kocc Barma te di si xam ne rek 200000 yooyu mu ko jox nga xam ne rek mën na see tàmbalee rek ay fajoom tàkk-tàkk yu ñuy nemmeeku ci autoroute à péage bi bëri na lool ba jaaxal ñenn ci askan wi alxames sax moo ci mujj ak auto bu rouge Baaba Maal ba fa takk jëppét waaye nag heureusement ba ñu ci muccee ndaxte rek moom moom mooy Baaba Maal ak xaritam ya mu àndaloon euh, ca boobule oto fexe nañu rek génn laata safara sa du leen di leen di laal comme nu ngeen leen di gisee noonu rek ba ñu ci mucc te dara dalu leen. Viviane Chidid Laye addu moom nag moo kon invité nikola si émission bi ñu dippee ndekki li si noonu nag reenu Jolof euh, bend bi dikkaat na rek si ay relation wam ak manager am bii di Djidiack Diouf ñu téye rek depuis juróom-ñaari fan si weeru février octobre 2020 euh, bii ñu nekk ngir trafic de visa donte sax depuis ba ñu ko téewee ba tey rek moom moomee euh, di Viviane nanguwul addu si boobule sujet waaye nag dal daal dina si euh, wax tuuti rek ci ba ñu ko invité si boobule émission la mu xamle nag moo di lu ñu téewee manager am bi nekk tamit frère euh, doon na lu ko touché lool waaye du dugg rek si benn détail euh, dafay dog a génne album donc dafa nekk si promotion loolu rek la sa xamle moom moomee di Viviane Chidid leneen euh, Cheikh Niass di doomu Sidi Lamine Niass daal di ne tudd doomam Sidi Ahmed Niass bés yi ñu génn si noonu rek mu si def allusion si kii di Sidi Lamine Niass ak Ahmed xalifa Niass mi nga xam ne ni rek bés yi ñu génn la doon tudd moom it doomam boobee mu dippee Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ba tey ci lu la people mu am boroom kër yàggul dara gannaaw rek ba ko footballeur bii di baaba kër Gueye jëlee soxna moom mu may ay Aïdara di actrice ci série bii di euh, Mœurs moom nag euh, mi ngi wone boppam à travers ay photos yam mu fësal euh, ci lii di réseaux sociaux yi bokk na ci sax yooyu ngeen di gis ci écran bi mu doon luy firndeel ni rek boobule mariage jig na ko lal wala ilaa rek sëy bi neex na lool ci moom mu may Racky Aïdara comme nu ngeen koy gisee noonu. aywa ba tey ci moom moomee Racky dara gannaaw rek yooyu lay photo mu fësal eh, di firndeel ni rek eh, boobu lay sëyam neex na lool wala wa ilaa jig na ko lool waaye nag diggante coow lu amoon ci digganteem ak Marie-Louise daa mel ni jeexagul ndaxte koccu rek daal dinay firndeel rek ab message bu muy wax ne ni rek lépp dina leer te kii di Marie-Louise ndaxte moom moomee rek mu ngi préparé ab dossier 30 minutes te bés yu yàggul dara rek dinañu ko am ana kan moo tëddee woon faru moromam si diggante Racky dara ak Marie Louise ak yeneen ak leneen moom nag Kocc nee na rek lépp dina leer fii ak bés yu néew dinañ am boobu les dossier muy préparé ci kii di Racky Aïdara dossier boobu nag dina yemoo ko 30 minutes moo xam ne ko moom Kocc Barma ñu wax euh, ci wéykat américain bi nga xam ni euh, Sénégal euh, sokkee ko di ay kon moom naka daal dinay dem si bërëb bu sell boobee di Makka nga xam ne rek bépp jullit bëgg na faa dem ngir ziare yonent bu tedd bi loolee naka la koy firndeel bokk na si photo sax yamu fa jël moom moomee ay kon bokk na si boobu ngeen di gis si ecran bi yàlla na yàlla nangu ñaan ci tàggat yaram la ñuy addu ak làmb ak rek CNG bu reconnaître kii di Modou Xarañ Lo comme roi des arènes bu ñu sukkandikoo ci président ba di Alioune sar depuis fukki at ak juróom wa illaa ñaar fukki at rek euh, kii di Gaston Mbengue installé premier roi des arènes euh, débat baa ngi persister ba jamono ji ci noonu nag président CNG di leeral ni rek football am na championnat basket tamit rek am na championnat waaye làmb am amul lii di championnat si noonu rek la sampe ab laaj di naan ba xam ndax ku daan rek ki nga xam ne moo daan ñëpp yow yaa gën a xarañ laata muy xam le ni yaakaaru ko moom moomee di Aliou Sarr si noonu sax muy dellu di xam le ni comité national bi buy bu muy diriger moom moomee reconnaître rek benn roi des arènes ndaxte rek dañoo war a organiser tournoi d'abord ngir mën a nangu benn roi des arènes ba tey ci làmb ji ak euh, Lac de moom naka Lac de Guiers daal dina yëkkati ay kàddu jëmale ko rek ci komba si diggante Balla Gaye 2 ak Boy ña moom nag la mu xamle rek moo di doomal doomu Double sa boobee di Balla Gaye 2 du musa janook kii di Boy Niang laata muy leeral ni sax ne moom moomee di Lac de Guiers 2 àndul si boobule combat ci diggante kii di Balla Gaye 2 ak Boy Niang Ah, ba tey ci làmb ak Lac de Guiers waaye bi la yoon rek euh, si révélation yu mu def rek ba ko Malick Thiandoum invité ses émission bu muy amal si euh, rajo moom nag Lac nee rek roi des arènes la soxla jamono ji si noonee muy xamle sax ni soxnaam weekend rek lay ñëw si moom ba mu ca noppee nak la xamle tamit ni moom moomee Lac euh, pare na rek ngir affronter Tapha Tine Eumeu Sène wala keneen tey naan rek du jox benn chance jeunes yi comme ku si mel nii rëg-rëg ak yi ñeneen laata mu leen di conseiller rek ngir ñu liggéey. wax euh, ci rumeur buy circuler bés yi ñu génn di si wax rek euh, président CNG bi di Alioune Sarr ak kenn si conseiller yi di Yaxya Diop Yékini neexootuñu président CNG bi nag daal na si indi leeral si point de presse bu ñu doon amal altine bale ñu génn euh, moom nag nee na amul benn problème ak kii di ancien roi des arènes bi te dañu ko jàngal rek moom moom mi Alioune Sarr si éducation wam ak métier am sensu dégloo ak tamit rek di déglu plainte yi di interroger ba noppi comprendre laata rek euh, ngay agir Tyson moom mi ngi fi Yékini tamit mi ngi fi de même que Gaston Mbengue ak Aziz Ndiaye euh, fépp nag am na malaise waaye ay démocrate la ñu laata rek mu yokk si ay kaddu moom Alioune Sarr ne rek euh, kaddu gi libre na CNG am nañ liberté ngir wax rek loolu amul problème mu xamle ko ba tey moom nommé Alioune Sarr di président wu CNG. football la yàddu ak kaddu yu Guirane Ndaw yëkkati moom nag kii di Diomansy Kamara ak Chérif Sadio daal dinañuy dal ci kobam moom nag Guirane dafa xamle woon rek dafa tricher euh, si atam te tamit 99 pour cent des footballeurs sénégalais yi tam dañoo tricher si seeni bu at euh, loolee tax rek ba kii di Chérif euh, Sadio daal di bind si Instagram am daal di koy tontu la mu xamle nag moom Chérif Sadio moo di rek ana kañ la kii di Guirane am rek ab. Euh, entreprise statistique wa ila sondage euh, bay rek euh, xamle naan 99 pour cent des footballeurs sénégalais dañoo tricher si seeni at ba xamle sax ni moom moom Guirane dafa tricher si atam si noonee ba tey Chérif di xamle ni rek kon Guirane dafa escroquer football club bu Sochaux Montbéliard club bu formateur am gannaaw rek départ am Sénégal ak tamit bépp équipe bu mu joué te nag loolu rek mën nañ ko see pour poursuivre ci kanamu yoon ngir escroquerie mu bind ko si page Facebook am moom Chérif Sadio nga xam ne ba mu noppee Diomaye Camara di ancien international ancien international sénégalais par ailleurs manager joueur bi moo ko dal di féelu moom nag gannaaw ba mu ko nakarloo ba noppi la ci xam le ni rek grand succès du leen rek lu dul corrompre africain yi seen bopp mu bind ko moom thank you